mooy que tey la gouvernement bi gën a taxaw pour aar xale yëpp rawat nañ ci mbedd bi benn xale watul taxawale ci mbedd bi di yalwaan wala di nekk lu dul noonu loo xam ne dina ko mun a faagaagal yàq wér-gi-yaram wala jàngam wala ak tekkeem bon ñu ngi ñaax askan bi yëpp ñu gën a ñëw taxawu jàppale gouvernement bi ci liggéey bi nga xam ne nii jaamu yàlla la dëppoo na ak diine dëppoo na ak yoon programme mi ngi tudd benn xale bu mu taxawale ci mbedd raw na jamonoy mbas mi. zéro enfant la ñu wax waxuñu zéro daara waxuñu zéro taalibe waxuñu zéro mètre coranique daara cosaanu Sénégal la daara diina la dañ koy dooleel dañ koy dundal gouvernement bi kenn bëgg ci jiitu lu dul dara nag kenn mënu koo aar daara mooy aar boppam bu ko jéem a xeex yaa ciy des président bi li ñu sant di ci dox guddeeg bëccëg. mooy lëkkaloo këru diine yëpp jàppale leen taxawu leen dooleel daara programme yu bëri am na ci programme bi ñu laal nag bu benn xale taxawal ci mbedd bi moo xam ca daara la jóge moo xam ay waajuram ñoo ko sàggane moo xam day nga ay waajuram ci mbedd mi bu benn xale nekk ci la di jalwaat di taxawal loolu na ñun ñëpp ci war a jàpp jaamu yàlla la jihaad la loolu mooy wax ji et président loolu la santaane ñëpp jàpp ci. loolu la sas gouvernement bi ñu lëkkaloo ci di ci waxtaan ci ministère yëpp mais loolu sant maral la ministre mu waxtaan ak ñëpp ba fi ñuy toll nii suñuy buntu tëjuñu ko ba ñu dooreem yu ni ba léegi bépp kuréel bu yëngu ci wàllu daara wala nga ne yaa ngi dox ci daara ñu ngi ci waxtaan lu tëm ñu ngi leen tàllal suñu loxo ku ci bëgg tey ma nañ la recevoir ku ci am xalaat mun nga ko indi document yi ñuy liggéey ñoom ñëpp a ko am donc ñu leen di ñaan di leen ñaax ñu téye xale leen ñu téye jàngal leen. ña koy def guddee bëccëg nag kenn gisu leen ci tele yi déggu leen daara kokk ci télé bi déggu leen daara xelkom ci télé bi déggu leen daara jaamal ci tele bi eh, ñooy taxawu daara guddee bëccëg dundal daara ñoom kenn déggu ñoom ñooñu nguur dañ leen di jàppale daf leen war a gën a jàppale ndax xale ba nekk daara ja la ko yellool ci lekk dund naan na ko xale ba nekk ci école amee noonu la noonu la koy war a amee te gouvernement am na ci programme yu bëri xam dañ koy gën a dooleel bon nag tëkkoo géeg bu ndoxataal bi jaru ko Nous que nous kënu ak pouvoir ken Nous dañ koy dolel dañ koy mais ken du ko fital Serigne Niokhobaye Diouf nga xamne mo direction promotion des droits protection des enfants ont nañ bu ndoxatal sax islam salam la miséricorde rahman Nous sommes koy soldats ndax soldat pour la république liggéey bii ñuy def dëppoon na ak diine dëppoo na ak islaam dëppoo na ak yoon jihaad lañ ko jàppe du ñu seetaan kenn di ko bundoxatal wala di ko tiital tey la gën a takku ak gouvernement bi yëpp pour continuer liggéey boobu.